waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di ziar leen nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mu mel ne nag ñu waxoon nañ ne dimanche bu jot incha allahu dinañ ñëw ak yéen ci benn tur yàlla tey nag tur yàlla bi ñuy dikk ak yéen muy tur yàlla bi ñuy wax yaa latiifu waaw yaa latiif nag moom baax na ci koo xamee ne dafa nekk ci ay xat-xat ci ay jafe-jafe wala koo xamee ne caabi daf koo féete gannaaw su fekkee koo xamee ne nag caabi daf koo féete gannaaw su ko mënee sikkar juróom-ñeenti junni muy neuf mille fois bu defee am na benn aay bu nekk ci <clears throat> anaam ñu koy wax xul euh, man yunjiikum min zulumaatil barri wal baxri tad'uunahu tadarruan wa xufyatan la in anjaana min haadihi la nakunanna mina saakiriin bu ko defee aaya boobu noonu moom la koy tëjee deux cent soixante-dix bu dee ku nekk ci ay xat-xat mbaa ñu tëj kaso bu ko defee incha allahu juróom-ñaari fan ak lu mu mënti ki def même bu rayoon nit sax incha allahu dina ci génn wasalaamualeykum jërëjëf yàlla ci yàlla def barke.